suñu bàkk mooy bëggatuñu bokk Mbambilor d'ailleurs Ndiagne Diop maire Mbambilor yey na leen sa conseil ba taxawaay bu rafet la fa taxaw wax na ne moom d'accord na pour jox ñu suñu commune jël nañ avem beneen bi mooy pas de Sangalkam may bu ñu kenn taf Sangalkam parce que Sangalkam attan ñun fanweeri ju nit lañ juróomi dëkk plus de trente cités ñu booloo am ay dret yoo xam ne moo ñu lii ñu booloo tënku def suñu mémorandum maanaam kayitu ñaxtu buy wane ne ñun valablement wane dem commune am nañ koom bi parce que lépp luy recette luy jóge fii mooy doon dundal Bambilor 70 pour cent des recettes kunun Kër Ndiaye loo Kër Daouda Sarr ak cité yi fii la doon jóge dem Bambilor tey jooju loolu la Omar Gueye bëgg a jël ñu li ko yóbbu ko Sangalkam delluwaat ñu fa ñu nekkoon buumu njaam yi nag moom lañ bëgg mu dog projet découpagem bi muy def naka def si bakkanam mam koy def consulté wul nit ñi xoolul nit ñi déglu leen amul dëgg-dëgg ma koy rappelé ne 2011 ba ko wàdd troxalee dafa daw ku nuun ñu far ay ay rangooñam mu nañu mu nañu jàppale leen ma alors dama néewal doole jooy fa ba contaane jooy ba kontaan laa wax suñu baay suñu paay na ñoom du ñu or ñu ne xale taxaw la ñu jàppale ko 2000 dafa fa benn emploi dafa fa dara 2012 ñëw xale yi ne lii jot jot na na jóg ba ñu jógee suñu jóg yëpp si waxtaan lañ ka lal juróomi dëkk juróomi chef de village fukki junni ak ñeenti signature ak kayitu ñaxtu ak ASC ak kuréelu jigéen yi ñu ne d'accord nañ pour ñu am suñu commune ñu ne nañ ka ko rencontré ñu ne daw boobu ba léegi nangu ñoo gis bo bo bo legi nangul rencontrer nangul la tassek chef de village ak comité bi dal di kay penchok ñom bobu bobu ambon na li xeyna nak wasin na set fum ke fum bebe bi na set fan la kay tété ñu xamal président Macky Sall kené li Omar Gueye bëgg def ci gox bi andu ci tay andu ci ëlëk Thank you.